Yeah. بجيساس من خير رب الورى في بخير وأدخل الإله في قلوب من تسبب في نهر ساك سمان إخراجه إلى البيت la من تسبب لا يدخل في رحمة الله ونارا يدخل وأن من تسبب لا يدخل في رحمة الله ونارا يدخل Realize لم يدرك فسبح سول الليالي همنا هديك المستبرك هديتي حسبي لا رد قال سنائي بلا تغيير ليس سخير عبير خير يغل إداري أمل خلقي سايل خلقي أو داي سلبي أو داي داي هيا العبادي سبوك باري سعوا بخدمة الهادي الأمين نعبد كل إله رب العالمين إن سعوا بخدمة الهادي الأمين يعبد كل إله رب العالمين إن سعوا فوق الجميع وسال كمدا ملك الذي له القيام سلمدا لنفسي قاد بي لأمدا قدر السقرة والإرادة قاد لأمد الذي أراد قدرة القدرة والإرادة هذا لأمد الذي أراد خير جمع هدى الذي البشر والكلام له هدى المدار لا إله هذه فضل الله ذي الفضل العظيم نسأله قبوله هذا النسيم ذلك فضل الله ذي الفضل العظيم نسأله قبوله هذا النسيم عبده الله رب العالمين إن شاءه بإن مدير هادي الأمين عبده والله رب العالمين إنساه بإلمة الآجرمين عبده والله رب العالمين إنساه بإلمة الآجرمين قود أموري وترك العظيم ذراة القدير غفور شكوت أموري وزن بالعزيم لعبد القدير غفور رحيم شكوت أموري وزن بالعزيم لعبد القدير عبد القدير Yeah, yeah, yeah. وكن لديم وأميرنا وكل غفور خليل مليم وكل مليم على ما لبيه وكل مدرا لفليل سهيم وابلي سلام وابلي دخان ونوي الجنان وزدني وزدني هدى ولأموري وزدني معي ولي غيابي وزدني هدى وأبني ولا تزيني إني كوني لئيم غيري لئيم أسير الهوى واسع ولكن إلهي عليم وابي يدر هنا وعدا لنا ولمن للهدى يستقيم وسلم

Jazbul Xulóot Touba Dén yal na leen Serigne Touba taxaw bi di fàttewaale kon bu ko defee ñu woo waa Touba ak is أحباب القديم تبا أجس وأحباب القديم تبا أجس من يوم كسر سنية من بكنا في هو أجال بسر المراحب من يوم فسر سنية وأجال بسر المراحب di tuddee rek kuréel ak bopp ak Serigne Mame Mor Bousso di ziaraale bu baax soxna Asta Waalo Mbàkke ñun bintu Serigne Abdou Karim Mbàkke ñun ma Serigne Fallou Mbàkke ñu ngi bu baax di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak fasaay de alxuraan jërëjëf Mbàkke kon bu ko defee ndigal bi Serigne Mame Mor Bousso moo di ngeen ñëpp ñu teewluwaat gën a defarewaat toogaay yi te xam Serigne Adama Ngom maraaxi ku ne xam na ne nu mu ci bis di doom di jëwriñ di taalibe ci Serigne Mame Mor Bousso moom Serigne Adama Ngom mu nit ñu koy siyaar mooy soogaat si doom

kon na ñëpp teewlu jàng waa kuréel Diyaalibatul Maraaxib ñuy fàttali wax ne pluralité xasaayid ne ñëpp concentré wu war ñoo am leneen lu dul tëbul xasaayid خاف فجاء بجاه عبد من لله خرجاء ربي بما يصرخ الأذان خاف فجاء بجاه عبد من لله خرجاء عمدي بدائم لا شريك له وساديا يوم نور ساديا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في كل بخير إليك الله الله إلا إلا غنمان مواهب كل جملة خلق من يختار من بلاء نجيته جلاء وما وكرماني हरे मफ़ा रमानु को फे रेफ़ा खे मत ये आने सरे मुरानो खरा ودومة المصطفى عن كل ما صدات وتاخر من خلقايا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من لأن خواد إرخان جميع خوارا يا خاديا يا مالك الملك يا من جعل خواد إرخان جميع خوارا يا خاديا يا مالك الملك يا من جل خواد إرقام جميع خلوات sane doro ya man lay sale La amen.

فليستقم بن عبد الله سيدنا وابلو صلوات من قال ويسر وخير سددي في خير سير الاقدام من ندي خلف كل سر سير الغدي المالك المكرم متخدي لمددي نجا بما يديم خير سددي فاز سخين بالقرآن مددي نجا بما يديم خير سددي فاز سخين بالقرآن مددي نجا بما يديم خير سددي فاز سخين بالقرآن مددي نجا بما يديم خير سددي jërëjëf jëf waa jaay batul maraaxib yàlla nañ ci biir jumaa gën a def ay mag yal na leen sëriñ bi yàq fu mu yàq àggul barkeb alxuraan ak xasaayid Diop soxna Binta bëgg lii rek daa bokk ak moom. Cheikh Ibrahima moo doon ki nga xamante ne boo xoolee jàmbaar ji di xalifatul am di Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina boo ko xoolee muy Serigne Mountakha mii xool ci moom ak biti doo ci gis lu tudd yàlla ku jëm sa kër di dem Touba jàngi woo xasaay wér gu ji woo da ngay tudd yàlla ñu tuddee ko journée zikrullah 24 heures sur 24. Cheikh Ibra Fall moo xam moo xam dëgg dëgg dëgg fa la leer di làqu woon ba tax mu wonnu ko ñu njëriñu ci ñun tey ak ëllëg ñun ñuy toog ñun ñëpp mboolam ku jàpp ne sëñ Mamour Bousso mii toog mën naa fa ca aaju. chaise yi tegaluñu ko ay picc ñun ay gor lañu képp ku toog ci chaise lépp lay sàpp ci at gi nag képp ku toog ci suuf yal na say mbir suufee ba faw chaise laa wax ku ci toog yal na sa adduna jag sa àllaaxira jag ci barke sëñ Mame Mor Bousso moom mi ronu mbaas bi ngoon ba tey mu ngi ronu mbaas bi Cheikh Ibra bi muy liggéeyal borom Tuubaa bëggul dara yaa ngi dégg sëñ Moussa Ka ne yendoo liggéey fanaane root gaa xaran banaan kuréet mboolam li ko wër di kur kuréet daawu fa bay di rux ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor def na ni def na ni waa kër ga ne waa kër ga nanu bàyyi sopp di root moom Cheikh Ibra bu jël liggéey yëpp di ko joxe moo tax mu ne la yéen doo liggéey fanaane root gars yi xaran banaan kuréet mboolam li ko war di kur kuréet moo fi xewal daawul doxee moo fi xewal nu yaa di nga am Cheikh Ibra bi Cheikh Ibra ñëwul ci yoonu murit kenn nuyu Serigne ba raam moo fi xewal nu yoo di raam moo nu teree wuyooti naam fekk na ñuy jàng fa maam mooy Cheikh Ibra fa bay di ruf rufi waaye xoolal Cheikh Ibrahima la ko sëñ Moussa ne ko joxe nga addiya gëléem yu safit burdu safit koom soldaar si yaa joxe sa doom Fadilou Fall am nga fekkee Cheikh Ibrahima képp ko am tawfeex àdduna ak àllaaxira ba liggéeyal ko benn seeni raw nga àddina raw nga àllaaxira moo tax boo demee kër Serigne Fallou fekk ko Baye Fall. boo demee kër maam Thierno Ibrahima Fati fekk fa Baye boo demee kër Sëñ fekk fa Baye kon kenn ku ne ñun ku fi toog képp ku ñuy raamal mun te ñàkk ay Baye Fall ñun nag ñun ñooy Baye Fall yi Serigne Maam Mor Bousso gone yi ma àndal ñi ma àndal ci gone mat nañu téeméer barke Serigne Saliou Mbacké amul kenn ku ñu yaakaar ku dul jëmmam ji defal nanu lu ñu musta defal Serigne Cheikh Fall borom ndigal moo ma wax ci lan la ñam ne mu ne ma bàyyi murit sama wulleere la nag borom ndigal Fall baax barki di boo jaay rek ñeenti doomam sëñ Moussa sëñ Massamba sëñ Jiiri ak soxna ak soxna Ani Fall mi Serigne Cheikh borom ndigal sama kër lañu waajee dem ak gan bi ñu jógee ci gan bi ci kër ga lañu ñëwaat ndekki si doo ko ñaanal ma doo ko yeewee ku dellu Touba sëriñ bi muy dugg sali daf may woo waa daara ji ñooy defar këram chaque dimanche wala chaque weer dimanche bi ci njëkk moo ma ne mbaa xam nga ne bëgg Cheikh Ibra dug tàng bëgg Cheikh Ibra dug juddu waaye moom moo lay tànnal ba fam nga bëgg ko looloo tax boo xoolee Serigne Fallou Mbacké maa mi soxna Waalo mii di bàyyi Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom Makaarimal Axlaaq boo ko xoolee la mooy njëkk a mooy Baye Fall sëñ Fall moom Baye Fall fi mu la sëñ Fall te barke xasaayu borom Tuubaa yi waa ban laay wax yéen a ngi yéen a ngi jàpp ne sëñ Mamour Bousso yéen kese la tey leen bu baax dinaa leen wax lu dul tey man xam naa ne baaxuma waaye sëñ bi nay nottali may wax diggante ren ak déwén lu ma ko ci wax amul. Sama wax na ko teggi sànni ko ca barke wa kaana xaqan alayna nasrul muminin bi ma ko naan màggal tuuba taalibe yépp toog ma ne ko digaam taalibe nit ku weex mi ab sinwaa la day raamal sëriñ bi laki lakk laki di lakk walau, di lakk ceeb di lakk wolof ba noppi naan jërëjëf sëñ tuuba kon kii na ngeen bàyyi xel defar nanu moom soxna lu dul nit mus ta ñëw ñëw sali sëriñ teguñu génn toono ñëw sali ñëw ànd ak ñun ñuy xëy di ko gis sëriñ Mamour boo ko miinee rek sax dinaa ko wax tey dafa ne woon bu ma jógee sali ñibbisi di ngeen yëg ne sëñ Tuubaa ñëwoon na fi maanaam man du man maa wax xëy na heure bi sax jot Karim min la dalaloon ci këram day jafe kon dama koy woo def ko mais libre nee na kër gi rus na koo luwee ci kuy caaxaan nee ba nga ñibbee ci suba si ca guddi ga nee na Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké Cheikh ñoo dugg toog ci boori piscine bi kenn ku ne ci ñoom Serigne Touba di jàng Jaalibatul Maraaxib Cheikh Ibrahima di jàng Tuufatu Serigne Saliou Mbacké di jàng Wakana Haqqan billahi wallahi wa tala moo ma jëm ci ba kër ga ma ànd ak paap mi ma top doon kër man ma jappé ma jappé ko ay wax ni da day daanu rek wala da bu jëtt bi wi ñu ñëwati rek ñu dalal law ma tedd guddi ma jàng nuuru daara yi ta ma tedd nuru daara yi ma joggé guddi aljuma ma tedd barke Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Mbacke mo ñëw bi mu ñëwé ba jumma mom moom Serigne Saliou mu ngi sol dara ju weex tàll solul mbaxane karaw gi ne sëy ci kaw bi mu ñëwee ba jumba jëmmam jii la muy dox sëñ bi man du ma làmmatu gis nga sa noppatu gii dañ koy iya yemale bambilor sëñ Mamor man campagne lu ma la doomi soxna nga jàng nga lu nit di war a jàng nga téere yi ne ko fi ñukk di daan say doole xaaroo at yi taalibe balaa ngaa wax say taalibe nañu kenn ku ne na jaayante sa jaayante njëkk a dóor taabal bi loolu li may wax Baye Sarr doy na ci séeréer sëñam di doy na ci séeréer daan nag jàmbaar oto nag bu nu ko ñaari yoon tàkkut war nañoo xool ba xam batterie bi moo dañ waaye ñun ki ñu ki nga xamante ne moom moo yor suñu éclairage ba noppi bu nu tawatee faj ba bu nu xoolee rek wala xalaat ko rek sunu lépp day muy Serigne Saliou Mbacké man bu ma xalaatee bu ma waxee jëmmam ci rek maanaam mënu maa waxtaan loolu ci Cheikh Ibrahima Fall ndax maanaam nit du xam a diw mën ta xam mën ta wax fexeel ba ba ku la gis rek di gis diw man de wallaahi asim ba ma yëg ci jëmmam ci Serigne Saliou boobu waxuma ko sax yéen ñi waaye nag kii ñu fi dajale ismullahi al azam bi ko sëñ Tuubaa joxoon xam nga lu yéeme gaay yi soxna yi sang yi turu yàlla sëriñ Tuubaa déglul bu baax moo ne araytani waxul aataytani de araytani la wax ñëw dikkal na ma sirra rasulullahi sekk rek yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lan wa qaala laa ilaha illa allahu fii ci diggante lambar nag maa yombal la ñu joxee Serigne Touba sirru la ilaha illallah mu téye ko ci loxoom nee na bi ma gesoo gisuma kenn ma xool ci kaw gisuma kenn ma dox juróom ñaari jéego ma xool sama ndeyjoor ma gis jëmm joo xamante ne mu ngi kaalawu ñetti kaala yu ñuul kuk karaw gaa ngi dinañ ko karaw gi lu ci naa la ma ne koo kana mu ne ko mën a Ibra Fall mu yëkkati turu yàlla bi jox Pone lay lay la la buso du neex laay lay la laa mbàkke du neex laa ilaha illallah baal nga am de yéen bëgg ngeen Seex Ibra te muy dëgg ci yéen ku ne na rétan ba yëg ni rétan sono wal rétan yaay yaay ci ndey kat sëñ bi da ngaa ba nopp waaye damaa xam ne base bu mel nii ñu tantal ko jigéenu àjjana yi toog nii ñëpp yaakaar bu sa baabi bëgg Cheikh Ibra yor couleur àjjana jar na yaa ngi daw suba ba tey kafe gi kafe gi doy na sëkk teraanga yi doy na sëkk xeewal gi doy na sëkk bu la nee sant naa sëñ Tuubaa war nañ kon ku fi toog di guub di lekk da ngaa mer waaye ñun meruñu bu soog teraanga yi doy na sëkk ñun waa Saly barke alxuraanul karim bu soobee borom Touba nag ma déglu ci kanamu mbooloo ay wax te Mbàkke dama di gox bi ma dikkee am di laa njëkk a songu ah alaaji ma xam nga dëgg benn nag kii daa xees ñuul rek waaye benn la waaw dañuy Sëriñ Tuubaa siitu la rek moom laa njëkk a songu ma ne ko saa man de damaa xam ne sëriñ bi rek may nemmeeku Bambilor bas wax ma ne ko waxoo dëgg man sëriñ bi man du ma ñëw de bas wax ma ne ko waxoo dëgg Fall tebee fa xaw ma Fall kan ci ñoom ñëw ne ma bàyyi xam nga ma ne ko waxoo dëgg mu ne ma sama baat pour woon ma ne ko sama yoon ñëw ci waaye bis bii Baye Sayer wax naa leen ñoom alaaji nanu jàpp bis ñoom membre yu magi yi ñu ñëw xam doom sëñ Mamour Bousso yii dégg nga ma lañ ci war a liggéey bari na sëñ Mamour dafa am benn entreprise Serigne Touba bu koy xaar ici à Saly ñun ak moom ñoo koy àndee entreprise kan la entreprise Touba Cheikh dara jëy borom Touba fii ci tànt kilifa yu baax yëpp wax na man mu doyati nii ba mu tëddi maa yor barke borom Touba Mbacke du yàgg dara sëriñ bi danaa may bagage sag yoo xamante ne mu ko woon jot ci àdduna man nee naa ko naa di dikk ci yow sa jox ma la dërëm laaju ko nag toppewu ko benn taalibe ni bay saye bi mu ñëwee sag ñi mu dimbali yëpp ci sëñ Touba tax ku ko ci jox ñaar téeméer ko jox wala téeméer loolu daa faj aju bëgg naa dimbali képp tax mu teg tànkam sali moo tax bi waxtu wi jotee ñu war a ñëw xale yi yëpp danoo ñëwlu bi mu waxee baat bi keroog bi mu ko waxee bi nu génnee ci ëtt bi lañ ko tàmbale sëñ bi na li ndigal la amul ci moom laay jébbalu amul jébbalu ndigal la daara ji na ut bu baxa ak kaala gu ñuul kaala gi moom nag bësoo te jiw sa ndigal la soxna Seck bu mu wax ji day leer moo ko sàcc ci walis ba mu sóoroo soxna waalo yaay dégg waaw moo ko sàcc waaye nag ku sàcc sa jëkkër dagan waaw waaw defi nag damay bañ ñu ne ah bàyyi mu rit moom xam naa li muy wax ci sëñ bi gëm na ko ndax kaa kaala bu rafet la six la Touba la jóge mooy kaala yooyu ñuy defar ba mu jeg mu rite maanaam bis bii ni ñu ko fonkee ak ni ñu ko waajee borom oto bi ñu waxal moo nu posé waaye bis la moo tax ñu toppatoo ñaari 42 places ku ci ne fay ko 80 mille ñu ngi nee taxaw barke xasaay borom tubaay gone yii bu sa baale yàgg suñu ndey ngir yàlla ak jëmmi xasaay fu nu woote ngeen sagal lu soxna waalo dafa may soppe sali yoo xamante ne xamagu ko nag xam naa bari nga ñoo xam ne doon nga say seen yaay te te te xamoo leen wallahi lazim soxna soosee alaaji sëñ borom bàcc akal la ana ndey tuuti dafa dox jógal da ngay jóg yaay booy moo leen doon toppatoo ci ndékki li ndax soxna si moom moo fete woon waañ ba ci kër bi bi keroog sëñ Mamor bi muy julli sëñ Xaadim jum di julli ci biti sëñ bi xool ko mustaxam sëñ xaadim miinul nay tuuti mu daal di ma ne ñii de seen ñaari mbir ànd na bu doonul ñoom ñaari du yàq dara moom mii dañ koy maye keroog bi ngeen décoller Sénégal fas yéene dem ci réew ma la xibaar bi ñëw wàcc ci noppam mu daw si ci man ne ma sëñ bi nit la ma ne ko du nit de daanu ruug moom rek ma ne ko lu xew mu ne ma am na xibaar bu xew nangam ak nangam su Tuubaa la jóge bu nu dikkee nangam ak nangam barke borom Touba Mbacké bi nga fa jógee fa tey maye gum naa fa ñeenti soxna ñu ngi jar de kenn nag laa koy jéebaani ci biir mbooloo mi rokkee Diouf mii ñor na xomm daara non Adama ñun sëriñ bi mooy sunu sag gone yi duñ leen lekk duñ leen naan def nañ la ñuy def ci ñoom bëgg nañu Serigne Touba fi de maa ci plein air bi rek waaw léegi jox Adama Ngom Adama jogal gars yi ñi yor bagage yi nañ dugg képp ku yëngu tey ba yowmal xiyam di nga yëngu sëñ bi di nga yëngu de bay seer ah, sëñ baa ngi yëngu de am na bisimilah dara ke wagul <laughs> waaw maa ngi ñaan ku sopp sëñ Tuubaa ci seigne mamour bousso sono walo mbacke ci magalu seigne mamour bousso soxna walo mbacke ci ngentik seigne mamour bousso sa jikko tax seigne bi tuddé la dom sa jikko tax seigne bi tuddé la dom kan moy sa baye cheikh abdul karim mbacke karimun ibnul karimun ibnul karimun karim karim karim karim sa baye karim yalla karim balay sa buri seigne mbacke maram yow xam nga ne di nga am nam yow xam nga ne di nga am nam dama wo bama ñew ñëw ma man amuma sëñ Mamour Bousso mo am nema Adama man amuma sëñ Mamour Bousso am awu bu sey wajiri Seexi Fallilu mom xaadimu rasulu mo ko farlu sëñ Mamour Bousso sa sang bi Seexi Mamour Jaara di mamam ñaari yoon moy magi Bamba mustajad aw yoon moy magi Seexu Bamba mo ka seexal tafal ko bolam barkem daram tutul mooy bàyyi soxna Mbacke yaayi soxna say mi jur sa yaay ñu koy woowee soxna nday imaami Touba Mbacke mooy baayam ba Cheikh Abdou Mourtalib bu sa kay yaaram ba jikko bay mba yoroon la làmboo diine ja ak jàmbar ja yaaka sàlloo doxin ba ak waxin ba yéen a ko nduroo leer geeg laa yi amul waroo jikko yi tax bambiloor jiital la jox la këru Cheikhul Xadim gi fal la ngay jàng di jàng tey saxoo si kër di julli tey naafile tey aaye sabar bu guddi ajjuma du tey kuréel ya teew góor ak jigéen tout tànk ñëpp daal di teew xasida yaa si kese lépp ay jolli ngay sant Bamba mi falee ko folli déglu ma wax rajo fii wér yi mu fi def ci Bamba nga xam ne kii moo rëy jëf gone seen jikko yaa ko defaraat कीर्तन तुटतर अंतया कीर्तन तुटतर अंतया कीर्तन तुटतर अंतया कीर्तन तुटतर अंतया कीर्तन तुटतर अंतया कीर्तन तुटतर अंतया भाई सुनकर मुसलमान बड़ों सब सिर्फ मसम्ब सम्ब तक सम्ब यून सम्ब आली मुसलमान बड़ों Samson bokkuna, Lisar bokkuna, Kasan bokkuna, Job bokkuna, Nyaay bokkuna, Sisan bokkuna, mat sa mbokk la Doraane sa mbokk la kula, sa mbokk la Malayni Saw Buso Bali, borom Bali, Buso bali borom Sam di ko yag di nga bay Baye de nga lol sama bay bi bay Seer sek may sa mi ci mun mi ci làmbaay may sa mi deg deg yow ni nga mana mel yow sa man du ragal yow sa man du andak ragal ya andak Serigne Mamadou sa jayoko yaa ànd ak Serigne Mamor Bousso ragaloo ko ginnaawam yaa ànd ak Serigne Mamor Bousso doon gayndeem tey ak ëllëg lii moo waral yaa gën a rafet ci sa génération lii moo waral yaa gën a boo ci sa génération lii moo waral yaa gën a jantal ci sa génération lii moo waral yaa gën a suur ci sa génération lii moo waral yaa gën a suur ci sa génération ah, kenn du bàyyi seer sekk am nga ndam sekk am nga ndam sekk ah, am nga ndam sekk am nga ndam sekk am nga ndam sekk ah! am nga ndam kenn du sëñ Mamadou Moussa sa waaji dégg nga sëñ Mamadou Moussa ah! man na sëriñ bi seexal na Baye Seer bés ni ki tey ah! may sa mu ci mbul may sa mu ci làmbaay mbokkum nday Baye Ilimaan Fay ah sama goro bu baax bi kooku dama ciy taxaw ndax nag moo ma jox lu baax waaye ku la jox mamita mi deselatu la dara mamita jugal taxaw toog eh! waaye Ilimaan Fay lu ma koy fay ci lu koy fay mbokkam ndey Ilimaan Fay keroog daf maa woo Ilimaan ma dugal vocal ci groupe bi mu ne ma xam nga ne Baye Seer gaynde la maay segg ak sëñ Mamour Bousso ne ma def naa addiyee sëñ tubaa ci 30 ans ji boole koo xeeb sëñ Mamadou Bousso jox naa ko sama njaboot jox naa ko samay deret yow doo ànd ak ku gore di doo ànd ak kuy xaar doo ànd ak kuy matt di ëpp sek ni nga ànd ak sëriñ bi dëkk nañu ci waxuma la dara waaye sëriñ bi daf laa jël féetale le bàjjen soxna Waalo Mbàkke balay sa buri sëñ Mbàkke maaram boo gisee su toogee ci jotaay damay perturbé ci moom soxna waalo bu toogee ci jotaay fa ma perturbé ci moom ndax yàlla daa dogal ah ñun moom ba taar jotee wuti nañu taar ñun ñun ñaawuñu Baye Seer yaa tax Baye Ilimaan dëkk Bambilor yaa sanu wax na loolu sama yaay awoon na yeen seede loolu balay sa buri sëñ Mbàkke maaram yow da rafet ci kanamu écran yow dangaa rafet ci kanamu oto yow dangaa rafet ci siis ci kaw yow dangaa rafet dangaa rafet ci salle d'honneur da rafet ci tapis d'honneur dangaa rafet ci tapis rouge lii ma war a sëñ Mamadou sa ne fu lay jaay taar am nga ko yaay boroom may sa taar bi ci yow mooy miir loo bësoo nga baal ma dégg nga loolu garmi la maxtaar ndumbe ma sàmba faa xujje maxtaar fari mata Moodu Ndak Jaare Yaaba xari maam Ale xari maam Aminata Loo xari maam saaxi war Fatma kokki Issa Dieye njag ak Issa Dieye yow mii Cheikh Ibrahima sa mbokk bu sa baale borom sam bàyyi fàll nga na solal na ma maxane baax na bàyyi solal nañ na solal ma am nil Moustapha Sow dugal taxaw ca kaw yow santal ca kaw sagul sant nga lool yow jigéen di woo Serigne Mamour Bousso doomi yaa soxna kànji ji yow yaa jàpp Serigne Mamour Bousso ba nga nekkee primaire amagoo managoo nga jëw ne dall sëñ Mamour Bousso am ni Moustapha Sow jëwriñ daayira jaalibatul maraxib yaa ne dall sëñ Mamour Bousso diir ko jege ko bëgg ko yiir ko Serigne bi jara lool la ngay tardé say cour stock na mu ne am ni jaral na ko mu tardé couram waye du tardé ci aduna du tardé ci àllaaxira am ni sëriñ bi ne ko lay xaar day xàdde jërëjëf mbay sama wajur wi jaax soxna dem ba jigen mbay mi nga xamante ni suma amé ciir ci kër serigne touba motax ma ngi lay sant de yow de liggéeyal nga ma ndax dan don laaj nit ki nan ko ñaan way jur ak ñaanub sëriñ bu ci gëna gaaw sang ba ne leen amul ñaanu wayjur du dajeeg du dajeeg sëriñ bu baax bu mëna ñaan yow de yaa ma liggéeyal ba ma gis Mamor Bousso ndax jëm ji soxna nday jatara moy wayjuram xaafisul qur'an la won te sama and ak sëñ Mamor Bousso lepp baatin la sama wayjur wu jigen wi du gone yi de daa mokkal jaawartu ak xasaay ju bari ci deñum bi ab jowal la nak way jowal ab touba daa kal xasaayid yu bari ci deunam te sa serin Baye Serigne jatar moko def ci deunam barke Seexul khadim man suma donul mourid damay toy na sama nday ji da di sama bàjjen di sama bay di sama nday dama togon ci pak bi ne ki dama ko xam mu xam ma barke Seexul khadim Mbàkke ku tabe ngi ni ku bax ngi ni mbay sax yalla na yàlla guddal sa fan bima sa cër bi ma bi sama wayjur amul sago ci man ba amul sago ci soxna ma mi barki seexul xaddim mbag yenn saa yi day xëy bala maa jox ma mi dara moom moo koy jox dara ma mi day jooy naan ko bul ma joxati bàyyi di ma jox ab xaalis loolu noonu nag mbay suñu ko waxul du nuy gor yow liggéeyal ngënu di ñaanal alaaji taala ngom sunu wayjur suñu borom guddal fanam wéru cam gars yi da ngeen may may rek tuuti ndax li may wax ci ca bokk lii may wax ci cant gi la bokk bés bi bésub sëriñ bi la maa ngi maa ngi tatagal Papa Kara maa ngi koy jox wàcc waayam muy sama mag di sama xarit yàlla dogal Papa sama digganteeg moom bi mu bi mu jamono yi mu ñëwee Bambilor yàgg na yàggul waaye dama teewul ci loxoom ne ko zikkar laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xol moo koy def maam bu bi bu laabul ci biir rek du mën a jariñe ci biti te ku baax a ngi nii ànd naag moom ba ci sëriñ Mamoor Bousso bi coow li di bari coow li di bari ku jug ne papa ku jug ne papa dama ko ba mu ñëw ma nekk nañ dem ci sama sang ba sëñ Mamoor Bousso te bu ko neexoon mu hésité ne yow de da ngay téye micro may téye micro papa loolu bu dul dëgg rek freiné ma ndax man Alaaji Taala mooy sama baay te yaakaaruma ku dul sëñ Tuuba ma ne ko papa am na lu nekk ci yow Cheikh Modou Kara Mbàkke Noori ni def ko ci yow ku bañ ku ne da ngay nangu yow sëñ Tuuba mooy wane boppam ci sa jëm coow li dana bari lool waaye jàmm rek nga am ma jël ko nekk damaa bëgg ñëw ba ci sëriñ bi nekk papa mii coow li daa bari ci moom barki Seexul Xaddim Mbàkke keroog sëñ bi da ko doon natt dañoo teex sëriñ bi da doon natt papa ne ko déet papa man li ma yore kenn du ko jëlee noonu faaw nga def dara ndax sëñ bu sax daa yorul yëfi gone barki Seexul Xaddim Mbàkke loolu lii sëriñ bi taxaw papa taxaw coow li bari ci moom lool lool xam nga lan moo tax ma xam ne papa mbiram dooragul dooragul de maam riir mu bari mi nii nañ xaar ba ci kanam tuuti ñun ay eh, suñu àddunaan ci sëñ Tuubaa maanaam amul jàdd jàddam lu réewi sootaan sootaan bu mbay xel leer yi sax di palam ko yaa balaas këlëm teepon da kon jaahil bu taalif te xel war war la yàpp njaajaar bayaar bayaas wallaay ndaamaa ngi soor ñoloor xanaa dafa rekk kële Bamba ak sëriñam wallaahi dangay nar dëggee kafandar gisee fa xambar fayaas fayaas amaara jaraway amaara jaraway fatuuba suma tuuba suma tuuba ma tuuba ñeel na ko sopp bamba nga sopp yaa waaw fa waylun suma waylun suma waylun waaw ñeel na ko noonu bamba nga noonu jumaa ji le faf di jooju le moo ma noppal ma noppal Sëriñ Tuubaa yi xalifa ba doon we di yaaram doo mi yaaram doo mi yaaram sëtu maakaay Madina du maasu yaasu jumaa ji le faf di jooju le moo ma Sëriñ Tuuba ya xalifa ba doon yaas waxoon naa leen nañ dem seeti Mawla waaw jamaalan min jamaali leer yaas wa innaka teg ala xuluqin aziim la yàlla waxoon ca suuratu Nuun si jaal jaral na ma dem madina wa ma katamar wa kaafi safa fa yaara yëgen ku dem fa këram mu soppi la soppi sal a ñu naa la alaaji ngay ku nu fa yaasin cu doom barakat na kookoy gën ci waa amul ci arab قريش xam na yaasin ak a neexante ak a neexante ak a neexante fala la yàlla faale nañ ko faale أين بنا أين بنا يا لندن يا لندن ألم لو وأهلا

dogal bu am yàlla ko def sa xam na di ay niiw saabara bu gërëm أكسبي خير suma yow moo tax ma ne leen muruti muruti bëgg leen may ci mbirum seen antami pour leen neenal muruti bëgg leen may ci mbirum seen antami may nelaw nelaw lu may nelaw nelaw lu may nelaw nelaw ಮನೇಲೆ ಗಲ್ದೋಲೆ ಬಾಂಬ ಬಾಂಬ ಗಲ್ದೋಲೆ ಬಾಂಬ ಬಾಂಬ ಸುಮರೋ ಮಮ್ಮ ಚೋರ್ ಕಾಕಿತು ವಾಯ ಫರಾನ್ಸ್ ಫರಾನ್ಸ್ ನಕ್ನ ಕೋರಿ ಸೆನೆಗಾಲ್ ಮುಫೆತಲ್ ಮಹಾನಿಸ France France not na góori Sénégal ñii mu fetal mu sàmmi Sénégal waaye France Sénégal ñii mu Sénégal ma tax ma ni leen moo leen gën kontaan naa trop kontaan naa trop waaw mais waxtu bi dafa jot gi noddu na waxtu bi dafa jot lu neex du doy waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal suñu sang bi Serigne Mamour Bousso daanaka aada wax na lépp ak yaay ji soxna di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu lépp doon ko yaatu ak mboolem soxna buñ fi fekk ak kilifa ak képp ku fi toog ñoo ngi lay ñaanal suñu borom defal la tawfiq déwén ñu toogee waat ko nii ku ci amul soxna genre elaay bi suñu borom may leen soxna ak ak bàyyi daam waa tëggaale naa ko ci ku tedd ki waaw suñu borom defal leen tawfiq ngom suñu borom may ko waaw may ko soobee yàlla xaar ma jox bas tamit amagul soxna Fallou Mbow Adama Ngom xaar ma jox la nga ñaanal ñëpp ak Cheikh Mbow moom miy jottali waate papa bàyyi li ngay def sëñ Fallou Mbow maa ngi lay jox sa wàccuwaay di doom ci bàyyi ci doom ci bàyyi Modou Mbow yow dan laa waroon a boole ci ñuy lim ah du tànk bi sëñ Izi du waaw bëgg na ko lool jërëjëf sëriñ bi nee na balaa déwén nga amam sëriñ Saliou amin barki borom Touba waaw Mamadou Lamine Gueye borom comico murit bu mag bi man daal bëgg na maa gis Mamadou Lamine murit bu mag Tak dama am lu ma bëgg def balaa eh bos bida di bésu sant damaa nekkoon sànq fa papa begnan nan sunu ya na ya na yok yokk la sàmm la waaye Abdou Cissé bàkk bi je. nama baga boga itu, koy tëj da ngay musirin fii ci sirin sëriñ bi fii la ah, la nyep. bi di ñaanalee fii la sëriñ la imaam la ci baay ah doon doon xuraan yaayam sëriñ Mamour Boussa yaa on rafet na yaa sanu njaay taxawaay wi rafet na mention spéciale Baye Moussa Wade taalibe cheikh bu baax ana taalibe cheikh yi sëñ Mamour Boussa am nay soppee taalibe cheikh soxna Daba Njaay taalibe cheikh bu mag bi ah lii may bëgg a wax nag dañ koy may taalibe cheikh yépp bàyyi bu njaay di bayi Abdou Cissé ak sunu yaay Mbaye yalla yalla yàlla guddal fan wi bu nu bëggoon a jot ci Abdou Cissé ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xatal duñ ci jot waaw ndax Abdou Cissé mom sunu sunu sunu mak la sunu mbokkum deret la waye ya soxna Kanji way jur ji Saw mu bax bi way jur am bi way jur soxna Numbe mu bax bi soxna day Saw sëñ Moustapha Saw taw njëkk juddu njëkk bax ana talibé cheikh yi kon nañu bak talibé cheikh yi waa Thiamène waa Mbackéne waa Kanjeen waa Ngayeen ñëpp bokk ci bu ko defee bu nu bàkkee taalibe cheikh yi bàkk Serigne Saliou tëjee ko jotaay bi ak way way wi nga xamante ne nii ah way la woo xamante ñëpp a ngay xaar ci sëñ Mamour Bousso ak sëñ Fall. 上山 What I'm saying? dem fa moom bay dem gàlla koor yi taxaw ñii say mbokk ñii seytaane ñii say noon naa la dafa daw waa ji nekk yaa الغرام شنوالو أي ساق سادو دالك مهرم أي ساق سادو دالك مهرم أي ساق سادو سما ماني ممكن دالك مهرم أي ساق سادو galliñu même sona waalo sëñ Fallu xanaa nga jàlle noo jàmm melaasim jàll Mustafa mooy sama sharifun sharifun sharifun sharifun sharifun sharifun bul bul sharif